Talla Ndiaye tey la dimanche 3 février Talla Ndiaye daan naa ko wax bu leen ko jaawalee kon Fallou eh Fallou seen ca Brésil waaye Saliou Faye mu nga Argentine ndaysaan doon naa ko wax Talla tey la 3 février Talla Ndiaye. lii grand combat la. ndeysaan diggante Bour Sine. Ah. ngeen jàkkaarloog moom jóge Bawal. Mama Lamine féete gos. jóge Lamsar. jàmm gi si Kambaaw. ñu ngay lewaatoo di wërën tey wet. eh Talla Ndiaye. Talla Ndiaye ñaari mbërë ngi. ndeysaan. Talla lii jarte jaawale Talla. Saliou Faye nu eh xeex. Saliou Faye borom marché Tilène. bul lii. combat ngi muy nuyu waa Fissel Mbaraan di nuyu waa Mbaraan yëpp ndeysaan taala Saliou Faye ma jox lii ma sol tey waa Géeja way naa leen nuyu naa waa Pikine nuyu naa waa Golf waa Parcelles waa Dakar Plateau xeex ñu ngay xeex dinañu xeex de ñaar ñu ñime duur daanu Mama Lamine ak Bour Sine Mama Bour Sine maa dugg la duur daanu Buur Sine Ba duñ daanu yee Mama Lamine ko daan lan ko. la ilaha illallah yee Talla Ndiaye kaay.